ci wàllu lu jëm ci góor ku bëgg soxna te jafe ko lool wala jigéen bu bëgg boroom kër te mu jafe ko lool loolu nag ñaar ya adduna moom lépp loo gis rek am na lu koy waral waaye itam am na lu koy sabab mu doon lu bari ci jamono ji nag da ngay gis góor goo xam ne day toll ci ut soxna bëgg ko lool def ko yitte waaye dafay mel ne rek da koy jafe lool ba tey tamit nga gis soxna soo xam ne day toll si am boroom kër waaye tamit da koy bëgg lool di si dox yi jéego waaye da koy jafe lool mbir mu mën di doon na ngir nga saafara ko faw rek nga xam la ka sabab waaye rek ñu baaxee leen si li nga xam ne daan na ko faral di sabab ak lan moo koy saafara bi si njëkk mooy rab daan na ko sabab ndax rab dafa doon lu yaatu lool si nit ñi ba noppi doon lu bari lu muy yàq lool ak ay gàllankoor yu muy def si nit loola nag bokk na si muy téye ki ba du am soxna wala bu dee jigéen la mu téye ko ba du am boroom kër bu fekkee raba ko sabab képp ku bind sooratul jinni muy xuluuxiya ilayya annahu stamaa ba saar bi jeex nga binn si ñaar ñaar muy deux fois benn bi nga def ko saafara sangoo ko juróom-ñaari fan bi si des nga awee ko deru gaynde incha allahu rabbi bu fekkee rab moo taxoon nga yeex am boroom kër wala nga yeex am soxna dina la bàyyi tey itam dina jàppale incha allahu rabbi ba tey def-def daan na ko sabab muy nit ki am ñoo xam ne say noon lañ jug def loo xamante ne si si wàllu njabar xam-xam bu ñuul loo xam ne da lay tëj ba tëj sa wërsëg tëj googa nag mën naa dem sax ba tëj la si wàllu soxna wala wàllu borom kër ndax loolu si wërsëg yàlla yi la bokk bu fekkee looloo ko waral képp ku bind fii jii di fois muy téeméer ak fukk ak benn daa say teg xul yaa ayyuhal kaafiruun daa teg tabbat yadaa teg sa lixlaas yi ak falaxe ak naasi daa di koy booleeg sungufu guy ak xasum xay daa di koy sangoo juróom-ñaari fan incha allahu rabbi bépp liggéey bu nekkoon ci sa yaram rek dina ko toj incha allah ba lépp loo xam ne liggéey moo taxoon mu jafe la dina la yomb incha allahu rabbi si kàttanu yàlla ba tey cat daan na ko def ndax cat tamit bëri na lu muy yàqu lool te itam bëri na ay gàllankoor yu muy def nit ba si wàllu soxna wala borom kër bu fekkee cat moo ko sabab képp ku bind faatixa bu ànd ak wa in yakaadu alladina kafaru ba mu jeex nga bind ko juróom-ñaari yoon boole ko ak xasum xëy sangoo ko juróom-ñaari fan incha allahu rabbi bépp cat bu nekkoon sax yaram dina daj ba tey tamit sóoratu duxaani képp ku ko bind sangoo ko juróom-ñaari fan bala ngay sangu nga nduggal saafara si ba tey tamit moom it bépp cat bu nekkoon sa yaram dina ko dindi ba mu seet wicc yooyu yëpp nag soo ko defee ba pare léegi nag lay tax soxna sa wala boroom kër ga yomb la bu fekkee jigéen la day bind lu sóoratul fajri muy wal fajri wala na ashrin ba mu jeex daal di jëmmee saafara sa ndoxam taw daa di jël saafara soosa daa di koy xiimee fuddan daa di koy fuddandoo incha allahu rabbi su ko defee balaa fuddan saa dañ si yaramam suñ borom dina ko wërsëgale borom kër bu baax bu gën si moom incha allahu rabbi bu fekkee góor la ba tey su bindee ñetti sóoratu duxaani benn bi mu sangoo ko alxamis bi si des mu sangoo ko altine bi alxamis incha allahu rabbi suñu borom dina ko wërsëgale soxna su baax si moom ku gën si moom incha allahu rabbi yooyu daal mooy li nga xam ne moom lañ waxoon dina leen ko baaxee am na yeneen yu gën a gaaw nag yeneen ñaan yoo xam ne moom diire bi du yàgg gën gaa yàgg fukki fan ak juróom la nit ki aajoom faju képp ku si bëgg yeneen i leeral rek wala yu gën a jàppale suñ déggantee si numéro yii rek incha allahu rabbi dinañ la ko baaxee wasalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu.